compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko let's go. <laughs> nga def rek <laughs> bu mu rek seen doo samaan jarul boobante ko am. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñu suivre ñu ngi leen baax di leen ziar tey lundi 30 mars 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour moo ko seq ak Bokar Ndour kormama borom jilaas borom mbeelo ngij borom géejawaay ak ki nga xamante ne mooy fajaa bu Kor laa koy seqal à distance coronavirus nee nañu à kon à distance dañu jël ànd ci nag ak ñu ci ciy àndal chaque jour chaque jour. ñu seetaani vidéo yi te ñëwaat ànd ci ak waa Vice FM ba ci Gambie Mbirkelane FM ba ci saalum di jëmoo Babacar Sarr ñu ngi leen nuyu bu baax sàmm sa téléphone application bi gën a wóor application bi gën a fiable pour protéger sa ay données sa ay contacts sa ay photo vidéo heure boo tegee sa téléphone di ko chargé nit bu ko déverrouiller automatiquement daf koy daldi photo yónnee foto bi ci sa mail bu ñu sàccee sa téléphone wala sa téléphone réer abal téléphone nga yónnee message ci sa numéro de téléphone ñu daal di lay yónnee localisation am daal di koy def contrôle à distance daal di lay déclencher sirène bi muy loo xamante ne nii nag boo ci bëggee ay yeneen i leeral da ñuy woo ci 77 149 04 08 le prix est fixé à 1000 francs CFA seulement. nga xam ne coopérative d'habitat émergence sociale moo ko mettre en place. ñu wi nga xamante ne. ñoo gën a néew doole. ci population sénégalaise. ndax askan wi dañoo sonn. dund plus de 40 ans ci location. ñaan nga yàlla am kër. am sa njaboot amoo foo dëkk dafa métti. li ma njëkk dégg ci coopérative bi mooy nii. jaaykatu gerte beeg. situation boo mën a am rek. war nga mën a am kër. xanaa bëgg kër rek moo ma ci dugal. sonn nañ loolu te bëgg kër. luyaas bi sonal nañu. dërëmu jaaykatu gerte caaf moo ci dugg. jaaykatu jën bi socc bi bi ak ëppukaay bi moo tax nag ñu jàkkaarloog yow nii di la woo Macky Sall yow la ñu yaakaar dimbale ñu ci sunu coopérative ndax néew ju doole yi am kër am naa yaakaar bu baax ni kër yi nañ ci jot soobee yàlla waaw day dem incha allah waaye li a noonu la demee Boucar Ndour borom mbeelu ngi maa ngi lay nuyu Boucar Lamine maa ngi lay fay di la waaw comme ni ma ko waxee sànq rek ñu andi journal Les ko journal bi wala journal euh, Dakar Times andi journal bi nga xamante ne mooy record comme ni ñu koy defee chaque jour ak journal sunu làmb waaye dañ koy commencé ci journal bi nga xamante ne mooy Dakar Times noonu la bu gara waaw ñu andi Gris Bordeaux Balla Gaye wala boog Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 Bombardier ak nga xamante ne mooy Tapha jàpp ni ñoom ñooy le grand perdant saison deux mille dix neuf mille vingt bi nga xamante ne moom la ñu nekk. boobu la mel moom mooy les grands perdants loolu la journal bi jàpp parce que boo seetloo ñeneen ñi ñëpp la si nekk yaakaar naa ne euh, euh, saison place arrangé wu la ku ni Gris Bordeaux ku si mel ni Balla dina la bombardé saison bi nag Lamine am nañ yaakaar ne maanaam arrangé wul sax benn mbër rawatina nag ñoom la nit ñi di gën di bëgg euh, ak Tapha rek ni ñoom ñooy grand perdant am na ay mbër yoo xamante ne tey ñoom tamit ci grand perdant yi la bokk ku mel ni moolo su bëriwul bokk day bokk ci grand perdant yi ku ci mel ni Ama Baldé bu bëriwul 2018 la gëjoon a bokk ci grand perdant yi ku mel ni Lac de Guiers numéro 2 digganteem ak Boy Niang daaw gis nga fi ñu jógee ku ci mel ne Boy Niang day bokk ci grand grand perdant yi est-ce que nekkul ni dalee na cité ñoom ñii rek def ci titre bi. waaw Lamine ñooy bokk ci grand perdant yi parce que bu xëy na bu nekk boo naree ah. tegle arrêt balance Lamine gën a yow moo tax mu jàpp ne ñoom ñoo nar nekk les grands perdants ku si mel ni yaakaar naa ne journal bi bind na ko jàpp na ne Bombardier poussé à la retraite kon bu defatee arrêt balance est-ce que du dem retraite rek indésirable mooy adversaire la boo xamante maanaam gars bëgguñu ko te Tapha Tine bëri na at ñu mu war a mën a bëreel waaye dafa mel ni daal kenn bëggul a moom moo tax mu jëm journal jàpp na c'est un adversaire indésirable maanaam kenn bëggul Balla Gaye sax booy xool 2019 bi bëri ci digganteem ak Modou Lo 2018 bëri na digganteem ak Gris ba mm-hmm. mel ne comme ni nga ko waxee rek la loolu tax journal bi jàpp ne xëy na ñoo nar a nekk les grands perdants Gris gën na bëri Bombardier tamit gën na bëri depuis combat ak Eumeu ni nga ko waxee Tapha Tine tamit bëri la ñu depuis combat nga xamante ni moo di Yékini junior yi ñoo la mhm. nekk les ñëpp ay perdants lañ waaye ñi ñoo ñi ñoo maanaam si ñii la gën a nar a mhm. keneen ko xamante ne métti na lool lool lool ci moom ba mu xëy di wax ay dëggam wala muy muy xëy di wax li nga xamante ne mooy li ko metti muy bàcc seeraas moom tamit journal bi xëy na séq ak moom waxtaan bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo moom bàcc seeraas nag la mu wax mooy dañ ko abandonné. ne loolu la journal bi xëy titre rek la nit si borom Pikine la borom Ginaara gars yi loolu na ma ko waaye tey moom la dafa dafa xëy rek maanaam déba débale lépp lépp lu nekkoon ci moom lépp lu nekkoon ci biiram lépp lu nekkoon ci xolam tey la nit mm. jébal ko ki nga xamante ni leneen moo di Boubacar Niang pour suñu làmb. Mhm. leneen loo xamante wax na ko mooy ñi nga moom la moom la lutteurs yi mu bokkal génération moom dañ leen a bëgg a génnee ci làmb ji wala dañ leen a génnee ci làmb waaw ñu bokkal génération boo seetoo moom moom génération ñoom jos la nim noonu la nekkalool génération mm-hmm. ba tax na daal jàpp ci dañ dañ leen a bëgg a génne ci làmb ji te pourtant yaakaar naa tamit seen génération ci li gën a marqué jos génération ki nga xam moo di Issa Pouye génération boobu la mit trop trop trop surtout jamonoy kalaaf bi mais boo xool bu ko boo xool génération am tey mën naa ne ñoom ñoo génnee seen bopp làmb ji tey Balla Diouf moom moo dem ba sentir ni dafa war a génne ci làmb ji mu bàyyi làmb ji ku ci mel ni Boy Seye ñoo bokkoon classe bi 2006 2007 dafa dem Espagne ni bàyyi na làmb ku ci mel ni Jos gis moom la bokkaloon euh, même même même même poule noonu la demee woon waaye boo xool tey moom Zoss sax mën naa am bokkuñu génération tey parce que boo xool Bathie Seras mu ngi commencé bëre yaakaar naa ay 2004 2005 yooyu te Zoss 2001 foofu su ma juumul yàgg na fekk na mu commencé di bëre. ak lu mën a xew daal même génération lañ parce que bëri nañ aller retour benn bi mu daan Zoss beneen bi Zoss daan ko. waaw Lamine ni nga ko waxee noonu la demee maanaam lamba ji dafa am ñoo xamante ne a gëm à cent pour cent rek ko waxee rek par passion la woon nii rek waaye parce que am na ñoo dañ si def nii rek bàyyi comme ni nga ko waxee le cas de Balla ñëpp la na a fekk ñu continuer ni ci làmb ji nekk ci affaire waaye dafa dem ba ñeneen ñi gëmatuñ ko voyagé dem bitim réew toog foofu noonu entraîné tuñu normal respecté tuñu làmb ji moo tax na ko waxee rek ñoo gën a seen làmb ji parce que tey am na ñu leen jiite si làmb ji te ba tey ñoo ci grante comme ni nga ko waxee ñoom amaseen ak ba tey ñoo si xëy na ngëm-ngëm bi ñoo ñu am ci làmb ñeneen ñi dañ ko dese woon am waaw problème bi nga xamante doon na ko faral sans ñu jox ko sax liberté provisoire maanaam dañ ko bàyyi noonu rek xëy na loolu moo tax mu mu mu metti ko ba mu xëy di ko wax ci journal sunu lamb. loolu tax mu metti ko ba mu xëy di Lamine di ko wax maanaam dëppoowul ak yoon parce que dafa jàpp ne dañ ko tëjoon noonu rek ngir seen coobare xëy na ci appartenance politique bu mu amoon parce que nee na jamono jooju mu doon politique di di militer su waate Lamine di militer PDS waaye xëy na loolu taxoon mu jàpp ne daal dañ ko dañ ko tëjoon tëj arbitraire boo xamante ni Lamine tegawul si yoon tegawul si ay sart biñ ko bàyyi tamit doon ko sax liberté conditionnelle dañ ko bàyyi noonu confisqué ay biyam li si mel ni terrain ak ay gérigam yëpp la ñu confisqué nañ ko ba tey mënu si jot depuis loolu moo siy daw pour jot ko. moom tamit ba ba mu ci génne dafa mel ne ci la wax ne ci la jël combat am ak ki nga xamante ne mooy Zarko wax na ñàkk na lu tolloog quarante ba cinquante millions affaire yooyu noonu te combat boobu huit millions lañ ko ci fay. waaw ñàkk na ay quarante millions loolu maanaam si si si bilan maanaam si bilan bi nga xamante ni tey mooy combat yu mu bëri combat yu mu jot a bëri yëpp nee na war na tolloog si lu war a mot si war a mot deux cent millions ba mu dalee bëri ba tey waaye jàpp na ne nag moom moom jàkk na quarante ak loolu na mooy li ma ko expliqué sànq si terrain bi nga xamante ne kay mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mu amoon ko ak ay birigam yoo xamante ne dañ ko nangu te depuis loolu mu ngi daw pour jot si te amul benn këyit bu voilà bu ko ne maanaam war nañu mun a réquisitionné war war nañu mun a naan nangu confisqué ay biens yooyu waaw waaye ba mu ci pare nag wax na ci li nga xamante ne mooy làmb moom nee na bàyyiwul làmb tey bàyyiwu ko suba sori na sax ku bàyyi làmb waaye nag ñi nga xamante ne war na mën a laal ak ñoom ku mel ni Diène Kaïré tudd na ko ci. waaw ñu war a na moom moom jàpp na la. da làmb la am amul leneen nee na nag wax na tamit si li nga maanaam appartenance bi ku ñu ñu def dafa dafa agressif wala yu su bannétisme yi ko ñu doon digal nee na moom dëkkul foofu nit ku simple la nit a waaye nee na li ko prince di proposé pour kase sax la ne nee jàpp na ne tey boo waroon def benn signature rek ferem lay doon kon yaakaar naa ne bëgg na bëri mais dafa jàpp ne am na ñoo xamante ne promoteur yoo xamante ne kese ñu koy fay jaaduwul yéen wul maanaam te loolu moom nee na xalaatu ko bëri. nee na loolu xalaatu ko bëre waaye Diène Kairé pare na pour bëre ak moom ndax booy xool Boy Kairé tey jour bi muy bàyyi bëre Diène Kairé bëre na ci jour boobu noonu te boobu Diène Boy Kairé bàcc seraat li mu doon bëreel jëlee ci defet kon yaakaar naa ne ko loolu revanche la boo xamante ne day xaar ki nga xamante ne mooy Diène Kairé waaye leneen la nga xamante ne wax na ko tamit ci Eumeu Sène mi nga xamante ne nekk na roi des arènes moom wax na ci loolu ba ci wax na ci digganteem ki nga xamante ne mooy Modou Lo wala boobu Modou Lo mi nga xamante ne moo nangu roi bi ci moom waaw Lamine wax na si Eumeu Sène jàpp na ne Eumeu Sène moom Lamine maanaam mu ngi naa jaayante ba nekk roi des arènes loolu moom nee na euh, euh, euh, instant bi maanaam lu jaadu la parce que nekk na ci jaayante bëre bëre ba ci roi des arènes nee na bu ñu koy ñàkk mu ngi ko ñàkkee si si si si Modou Lo nag day day xaar rek ba xam ndax Modou Lo naka lay def ak couronne bi si digganteem ak Ama Baldé waaye bëggu see yaatal daal. waaw nee na nag yàlla rek moo xam la nga ne mooy xew ca diggante Modou Lo ak Ama Baldé waaye dafa mel ni loolu moom waaw loolu moom biti la fanaan da moom daal li leer ba leer mooy ko ne daal yàlla moo nar a xam li xew si diggante Modou Lo ak Ama Baldé waaye nekk na combat boo xamante ne daal nee na lu bëri waaye boo gisee lool lool loolu moom Bathie Seras ñu des ci journal sunu lamb Bathie Seras daa pare rek mag ji jël di Aliou Ba moom tamit ma ngay wax ci diggante arbitre yi ak CNG bi nga xamante ne dañoo raje Sitor Ndour nee na loolu moom lu anormal la ànd ci tey sanction bu diis gànn la sanction bu diis gànn la Aliou Ba nekk course la mel fële nga xamante ni day moo di école de Pathé Seras wala école Pathé Seras rek moom moom si sanction yi teg ñoom si toor ñoom Malick Ngom loolu lay jooylu loolu lay ñaawlu waaye jàpp na ne sanction bu métti la bu luur la boo ak ak lu làmb yëpp parce que yaakaar naa ne moom ñoom Sitor ñoom Malick li ñu leen teg mbër yu bëri di Malick moom ñu démb déggante nañ téléphone waaye jàpp na ne mbër yu bëri woo nañ leen ñu jàppale ñu ne maanaam bu bi jeexee si jàmm ak salaam bëgg te jàppale leen ci combat bi à cent pour cent à moom dafa mel ni moom ba léegi combat ba nga xamante ne dañ koo dàq digganteem ak Gamou Gueye te coronavirus bi waral ko waaye dafa mel ni soq moom combat boobu ba léegi da ci am lu ko metti wala boog ay ngëm-ngëm wala boog mu dépassé ci woon loo xamante dara yàkkamtewu ko lu dul arbitre génnoon rek ci digganteem ak nga xamante ne mooy Gamou Gueye waaye nag ak nee na lu mën a xew pare na pour affronter Gamou waxtu wu ne heure bu nekk koñ bu nekk stade bu nekk. tax na mu dépensé sans calculer maanaam lépp lu mu amoon rek Lamine da ko def ci combat bi ngir bëggoon a am ndam si kaw gàmmu koy numéro deux moom soog moo xëy tey rek si biir moom nag jàpp na ne euh, li xew euh, ko ne ne moom moom ci état boo xamante ni parewul lu dul bëri neuf combats la am neuf victoire moom Franc muy mbër boo xamante ni ba léegi daanoogut ci lutte avec frappe bi moo tax journal record ci xalima ak Abou Ndour xëy def ab jàngat bu ama am solo ci moom moom Franc François Gomis da njaago njaago or lañ ko la ko di woowee njaago or. la si ñaar bi ko ne njaago or njaago or nag su ma ko waree sama xel de dem si Mitterrand borom France Mitterrand Mendes moom tam njaago la ma koy nuyuwaat. moom Émile François Gomis Lamine jàpp na ne wala journal bi moo ñëw def si moom ak jàngat neuf combats Lamine wala wala neuf combats neuf victoire huit yoo xamante ni Lamine maanaam kon depuis ba mu duggee si làmb ba xool deux mille dix huit deux mille dix neuf bi def na six tournois yoo xamante ni benn defet. waaw Lamine daal moom daal Lamine depuis ba mu duggee si làmb déggagul mu ñal moom Émile François Gomis defagul benn année blanche. simple bi tamit ñoo ngi ci di béy waaram kon yaakaar naa ne mille franc saako la lamin parcours zéro faute la defagum en lutte avec frappe. en lutte ñu def ci journal bi ak ki nga xamante ne mooy wala boog ak bi nga xamante ne defagun nañ seen bilan donte saison bi jeexagul waaye nag def na xaaju bilan wala boog xaaju saison bi ñu ngi def instant bi bilan bi moom Abou Ndour jàpp na ne instant bi Lansar nag instant bi am nañ réussite quatre vingt cinq pour cent six victoire lañ am ak ak benn défaite. six victoires benn défaite quatre vingt six quatre vingt cinq pour cent de réu de taux loolu la Lansar am écrit bi nga xamante ni rek Père moo ko jiite tarkinda bu mag bi ñu koy nuyu de passage la mu mel ne si teel a passage rek ñoom la ñu ngi ko waxee rek saison bi ubbi na waaye dafa Yaxya bu ndaw waxoon naa la mi ngi ci réew mi journal bi tey bind na ko Yaxya bu ndaw di Papa Ndiaye Yékini Junior ñibbisi na waaye ci réew mi a nëbbatu la ko waxee woon keroog rek. ñibbisi na daa mën daa mën a nëbbatu Lamine rek comme idolam il est discret ma suñu grand suñu doyen Abou Ndour moom Yaxya Diop bu ndaw daal ñibbisi na mu ngi ci réew mi Lamine kon yaakaar naa ne li nga ko li nga waxoon rek Lamine moom la journal bi xëy dëggalaat Lac tamit journal bi xëy na fësal ko di wax ne reprendre na gu de la lutte à la waaw Lac Rose Lac Rose reprend gu gu à maanaam mooy que mu ngi ci waat ci lamb bi rek depuis loolu bi mu a gis waaye dafa mel ni ñëwaat mu nga la mu ngi koy gunge ci ay entraînement maa ngi ñu amee blessure mu mel ne loolu leen andiloon ñu ngi nuyu ñuy suivre le tv point com yëpp foo ay mën a nekk si àdduna bi bu baax a baax di leen ziar Abdou bu xarañ loo Mame Balla Gaye ñu ngi koy nuyu di nuyu Abdou Darame bu baax a baax di nuyu groupe Lutte TV ñoom ñëpp Malick Ba Tuuti Yaay Sarr Omzo bu Garga Serigne Diour nee nañ buñ tontooti kenn kenn kenn ma ne leen incha allah na seen xel dal dootuñu tontu ma Samba nii ma Demba ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax di nuyu tamit waa Sandaga yëpp di nuyu Waldo doom day zéro Diès di nuyu tamit sa gaa yooyu waa Touré Sport ne leen nag instant bi ñu ngi cukki cukki bu baax léegi nag dafa am heure boo xamante ne moom lañ war a génn six heures dañu wax ni am na am nga droit nekk ci mbedd mais bu kar nit ñi ñu ngi génnaat ci mbedd yi da léegi man loolu moo ma jaaxal. Mm-hmm. nga ne nit ñi ñu ngi doxantu de instant bi doxantu man de nit ñi dama leen di gis léegi après vingt heures bi ñuy dox. waaw après vingt bi am na ñuy dox waaye xëy ñi am ñi am ñi am lii la rek. am ñu daara fii de Kër Massar maa ngi gis ay nit yu dox xam naa nag dañuy bu gaay bu seen i gaay daw. xëy na mën na am na loolu Lamine waaye daal ñu ngi ñu ngi nuyuwaat ñëpp Lamine di jaarwaat ñëpp rek di bëggee ñi ko waxee di commenté di jaarwaat def na li nga wax mi ngi dagg de li nga wax mi ngi dagg de ñu ngi jox ñëpp rendez-vous suba ah. incha allah Boucar li ngay wax dara leeratu ci ñoo ngi jox rendez-vous demee incha allahu rabbi règlement de compte la ma Modou Lo. mu nekkee règlement de compte. bu demee bay doxee beeke dinaa ko fekk si nangu beeke mu daanu mu joxaat ko beeke bi ne ko <laughs> def ndànk rek. <laughs> bu mu yàqamte rek seen tasamaan jarul boo ko